asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 21 octobre 2019 ñu ñëw ak leen ci yëglekaay yi yëglekaay bii di sunu làmb dafa ñëw ak ñun ci ki nga xam ne moom mooy champion boobu dëkk fas di Papa Sow Papa Sow nag nee na moom daal ñëwul ñi nga xam ne ñoom ñooy fayeku cachet 100 millions yi cachet 100 yi daal maanaam yëngalu ko waaye moom Papa Sow ñëwaat nag ñun ci yëglekaay boobu di sunu làmb ne ñu moom daal pare woon na pour bari ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès waaye nag combat bi ko gën a neex combat yi bokk na ci combat am ak Boy Niang waaye kii di Modou Lo Papa Sow daal nee na mën naa def li nga xam ne moom la Yaxya Joob Yékini defoon fii nga xam ne ba mu nekkee roi des arènes yàgg ci lool def ci ay jaloor yu bëri waaye Jules Balde de ñëwaat nag ñun ci fii di sunu lamb ne ñu ki nga xam ne moom mooy Ama Balde mën na xool li nga xam ne moom mooy adversaire am yoo xam ne moom la xalaatal boppam kon daal ama ndax dañuy laaj est-ce que moom dana mën a bëre ak ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers numéro de wala déet ndax am na liñ ca waxoon bu njëkk waaye nag retouru Malick Niang sunu lamb ñëwaat nag ñun ci loolu nañu sunu lamb daal nee na Malick Niang mii wàññeeku na ne day def saison boo xam ne bu doy waar doy lay doon maanaam daal moom Malick du maye dara waaye nag sunu lamb ba léegi ñëw ak ñun ci li nga xam ne moom mooy lutte simple lutte simple képp dafa am lu ci bees lan la xanaa jax mi waxoon un million lay teg teg na ci 500000 maanaam 1 million 500000 lay teg le 27 octobre bii di ñëw ca terrain gaal gi waaye nag boobu 27 dafa doy waar tuuti ndax amateurs yi ñu ngi xaar Adrien Senghor Ngor Semu Diouf ak ñamu àndal tëgg waaye itam jax nar a tëgg li fi nga xam ne moom mooy gaal gi te ñoom ñaar kat ku xool gaal gi ak Adrien Senghor xam ne jegante nañ jege boo xam ne amateurs yi ñu bëgg a seetaan lii bëgg a seetaan la ca des xëy na nañu xaar daar ba xam fan la waneen di mo ci gi waaye am nañu yaakaar ne déggoo dina am waaye kii di Assane Ndiaye nag xam ngeen ne ku wax Assane Ndiaye xalaat Touba moom nag xam nañu fu mu feete waaye màggal gi daal Assane daal lu doy waar la fa def dem daal màggali màggal bu toj bu am solo kanji def modd Baye Fallam ñëw daal taxaw sol yére yi Baye Fallam waaye kanji daal li koy wax mooy boo de màggal waaye kii di Garga mboose nee na kat moom a ah, mënatul bañ ki nga xam ne moom mooy Diène Kaïré loolu la yëglekaay bi wax Diène Kaïré def na fi loo xam ne war naa mën a tax Aida Mbose mënatu ko moytu Ameth Deme nag nee na pare na pour jox espoir yi lii di seen chance maanaam tàlleen leen loxo may leen chance bëre ak ñoom waaye nag écrit Malika Mbooloo yi di yëgle kaay bi nag dafa ñëwaat ak ñun ci li nga xam ne moom mooy bilan saison fukki combat ñeenti victoire juróomi défaite ak benn nul dafa mel ni kat. li nga xam ne moom mooy leader yi ñoom ñoo assuré waaye nag tigre bu lamsaar nee nañu nag war naa bëreeg Ousa 2 bëreeg Gakou 2 wala Petit Niang loolu day adversaire am lañu waaye ñu new ba léegi ci leewtoo point net dem ak ñun cangu njaan ànd ak assantine Tine nga xam ne moom mooy Tine production di promoteur boo xam ne dafay tëgg li nga xam ne moom mooy lambi simple korité tabaski ak retour boole na ko ci ñëw teg ñeenti nag ak fukki junne ak juróom benn asantin kon nee na waa Ngunjaan kañ la tey jii day bëre waaye suba la final bi muy mardi kon yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm kon mbokk yi loolu lañ leen indi loon jërë ngeen jëf mbokk waa Leewtoo TV di leen nuyu di leen gërëm di sant di wax namoon nañ leen mais nag xam nga rek ni ngi woon si màggalu Touba bi mais ñibbis nañu ak jàmm tey nag maa ngi ànd ak eh, sama màgg biram biram maa ngi nuyu di la gërëm di la ziar ci màggal bi ñu jóge waaw Ndeye Comba di la fay di la bu baax Fall Ndiaga Yaram xam nga boo fi toogee sant Fall eh, monsieur Fall di filmer Eh, ñu jóge ci màggal Touba gi vraiment dañ lay ziar bu baax ziar mboolem euh, addina bi ak mboolem murit yi waaye mboolem jullit yi yëpp parce que màggal gi pour ñëpp la Serigne Touba pour ñëpp la ñu ngi lay dellu ziar bu baax a baax di la ñaanal yàmm bu baax. am na solo Birame commencé ak sunu lam sunu lam te dañoo xëy dala ki nga xam ne mooy Papa Sow Papa Sow soo leen ko déggee mooy nekk écurie Fass di pulon ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux moom nag nee na pare woon nee na moom amul dara lu muy xam ni euh, amul dara yoo xam ne envie envié biram envié na ko ñi nga xam ne nooy fayeeku cent million te moom nee pare woon sax pour nga pour bëre ki nga xam ne mooy Sa Thiès nee na aussi euh, moom ak booy Niang combat bu combat surtout bi taxawee mooy combat yi boo xam ne moo dàq ci ci saison bi wax na tamit ne Modou Lo mun na euh, battre record Yékini maanaam toog 15 ans te amul défaite biram waaw loolu Ndeye Comba dañ lay jaajëfal bu baax a baax fal njëga yaram xam nga Papa boo xoolee bokk na ci mbër yi ëpp combat ci lamb ji bokk na ci boo ko limalee ay combat ci ñaar fukk ngay commencé dem kaw euh, boo xoolee nag bu bu nee man ñeewu ñi nga xam ne dañuy fayeeku 100 million maanaam cachet 100 millions yi yaa ngi dégg coow li ñu naan cent millions ñi naan cent cinquante ñi naan deux cent mu ne man daal yooyu man man yëngaloo man Papa am na ci plein droit parce que xam nga boo xoolee bu ñu nee deux plus deux égale quatre dafay mel ni bu fekkente ne mu ngi bëre vingt million cinquante million trente millions quarante millions di ko bëree lu mat juróomi yoon. 40 millions wax dëgg si yàlla yaakaar naa moo ëpp benn yoon 100 millions ba pare benn yoon 100 millions benn combat ci am ci année bi. boo seetloo 100 millions yi liñ koy lim bëriwul am na ci plein droit te loolu bëri na mbëri yoo xam ne tam dañoo war a mel noonu parce que tam bu fekkent ne dañuy jël 100 millions yi rek teg ko suñu kaw ñu ne waaye su ma bëriwul 100 rek du ma bëri day xaw a doy waar diggam ak Sa Thiès lu mu solo la dafa ubbi bunt yi moom pareyoon nag pour bëri Sa waxoon nañ ko fii waxaat ko mbëri yi dañoo war a seen bunt yi ne pare nañ pour bëri ak ñëpp parce que lamb lañ fi nekkal ku fi nekk pour lamb nag del bëri te xam nga moom ak Lac de Guerre de revanche la combat bu neex la ñu bëre woon kon bu ñu ko tollantee itam day gën a neex rek kon loolu moom vraiment dañ koy rafetlu ne promoteur yi comme dégg nañ loolu nañu doxi Papa Sow ak ñi nga xam ne ñoom la wax ak ñeneen sax ñoo xam ne peut-être tuddul seeni tur loolu daal laa gisandeeku. ok euh, journal bi aussi mi ngi euh, xëy laaj ne est-ce que Ama tamit dem jëli ki nga xam ne mooy Lac de parce que Ama xam nañu diggante ba magam ki nga xam ne mooy Jules Balde neexatul depuis bi nga xamee ni Ama jël na avance su Tapha Tine delloo ko ki nga xam ne mooy Pape Abdou Fall moom nag journal mi ngi xëy di laaj naan est-ce que comme que léegi euh, ki nga xam ne mooy mag ji Jules Balde dafa raxasu ci carrière ki nga xam ne mooy Ama Balde est-ce que léegi kon léegi Ama Balde il responsable de sa carrière est léegi du dem jëli ki nga xam ne mooy la dëgër parce que si bu bàyyam doon dund defe na que mu ngi dund combat boobu du am ndax nee nañu ay mbokk lañu léegi comme que baay ji nelaw na ki nga xam ne mooy euh, Jules Balde moo fa deewal moo nekk comme seen baay ndax mooy mag ji nee ñu est-ce léegi comme que léegi dafa raxasu léegi si carrière wu Ama est-ce que léegi Ama dem jëli nag ki nga xam ne mooy la dëgër euh, Birame. c'est tout à fait normal euh, xam nga bu fekkente ne. la baay ja yoroon mag jaa ko yor parce que tey jii baay bu fi nekkatule mag ji ku góor moom la ñu jàppee ne moom mooy bàyyi comme li ñu Balla Gaye wax keroog dañuy wax mu ne Jules mooy baayu Ama toogul sax di ci commenté effectivement looloo am mais bu fekkente ne nag bàyyi ba lam fu bàyyi woon ki nga xam ne moom mooy mag ji moo ko téye ne ko su ma sañoon duñ suñu bàyyi bàyyi nii lay demee nii lay demee ak nii lay demee ñu topp ca loolu bu demee ba defatul loolu kon nag dafay mel ni relation ya papa ji seqoon ak waa Lac de même bu fa nekkee comme jury nekkatul responsable ci loolu rek ama war naa mën a waaxu dem jël Lac de Guiers parce que benn bokkuñu écurie bokkuñu loo xam ne mooy tax du ñu bëre relation yoo xam ne ñun mag nañu. est-ce que lu baaji newoon du ñu bëre est lu am na loo xam ne baaji xam na ko te xëy na xale yi xamuñu ko. waaw xam nga bàyyi xam na xam na ko te xel yi xamuñu ko waaye ndeykumba tey jii dem nañu ba wax joojee buñ ko toppoon tey Jules bu ne déedéet déedéet lay doon. comme Jules nag bu nee déedéet nekkul déedéet dafay mel ni euh, xel yi dañuy xaw a jaxasoo ci côté boobu li ma la mën a wax daal mooy combat bi combat bu jaadu la ca deret nag ci leneen boo leen bañee bëri administrativement da ngeen di bañ bokk écrit boo ko defee rek moo gën a yomb ci xajatloo boobu bokkuñu écrit léegi nag ñoo bokk écrit man ak yow ñoo bokk ndey ak bàyyi wala suñu bàyyee bokk lii ak lii du ñu mu jeex tàkk lool daal la mbëri war a def waaye koo bokkalul écrit rek war a bëri moom loolu moom c'est administratif loolu am na solo Birame te mi xëyee di laaj naan est que ren lu nekk comeback bu maanaam le grand retour de Malick Niang ndax seetlu nañu depuis parce que cinq saisons yi nii takkul ngeen moon depuis bu ko Ama Baldé daanee woon mu nekkoon premier défaite am nee nañu nag comme que temps yi ay am na ay adversaires yu bëri ay mbër yu génn di ko laaj nee nañu est-ce que ren nekkul le grand retour de Malick Niang Birame xam nga Leewtoo TV ba mu demee denk Ibou Senghor micro dafa ne nañ ma jox Malick Niang lu mu mën mën naa ko ëpp ma komba ëpp ma lii ëpp ma lii beneen mbër yi wax ko yeneen mbër yi wax ko Malick bu retourné ñu xool Malick ak yaakaar ji Yoff am ci moom ba mu jógee écurie Ndakaar Yoff gépp nekk ci ginnaawam xëy na defete ñëw mu ànd ak peut-être leneen la woon xëy na mu loolu moom la concerné bu retourné na moom retourné na en force na ko promoteur yi jël en force janoog moom jox koy adversaire mu bëri ak moom parce que Malick dafa am place ci làmb ji ne kumba il n'a pas raison mu toog xaw a xaar tuuti déedéet amatul xaar reculer na pour mieux sauter moo xam la ko reculer loo daf ma feebaroon dama amoon dama jàppoon dama liggéey woon dama toogoon loolu moom la xam moo ko xam waaye retourné na nañu ko joxaat liñ ko war a jox mooy jox ko xale ñu bëri ak moom Euh, biram ni ñoo nag si bilan bi tey nag sunu laam dafa xëy dalal écurie euh, euh, Mali Malick Malika Mbooloo ki nga xam ne fa la général Malika nekk nee ñu nag ñoom foofu chef yi ñoom noo assuré maanaam chef de file bi ki nga xam ne mooy général Malika def na un parcours sans faute drapeau chef de l'État ak bëreef avec frappe bi nee ñu nag def nañu 4 victoires 5 défaites ak benn sans verdict waaw foofu boo xoolee dafay mel ni ténor euh, am na ñoo xam ne daal ñoom ñoo assuré volet bi ku mel ni euh, général Malika ñu ngi koy ñaanal bu baax euh, vraiment giri bu Malika ñoom ñëpp bu ñu assuré ne ñoom dañu dañu dañu góorgóorlu ba am seen i quatre victoire Euh, dese naa baax nag parce que nag xam nga fukki fukki fukki combat boo amee 4 victoire la des moom mënuñu ko tuddee victoire juróomi defet la ak benn benn nul dafay mel ni nul bi moom bon juróomi defet yi daal moo ëpp 4 victoire yi dañ leen di ñaax rek reste saison bi ñu def lu ko raw xam nga général Malika gis nañ ko Assane Ndiaye taxawal ni ko am na komba te xele bu doy waar la ndey kumba xele bu doy waar ni nga ko waxee drapeau chef d'état dafa ñëw def parcours sans faute lu mu fekk ci kanamam teg na ko fale ba bu muy daan rëg-rëg ci Adrien Senghor lu doy waar la woon di toog taxaw janoog moom ñuy teen di tiire mu ñëw taxaw ak moom ma ne ko mais booy lan nga nar mu ne ma tey nga gis doo mës ta gis kon loolu dañ koy rafetlu te ñaanal ko yàlla waaye itam ñaanal rëg-rëg ñu xam ne euh, écrit yëpp benn lañu waaye bu diis combat amee 4 défaite am am na ko am 6 victoire kon ñu ngi ñaanalaat écurie Malika Mbooloo ak mboolem stafam ñu gën a liggéeyaat rek xëy na le meilleur reste à venir. Euh, Birame jeexee nag ak euh, lutte simple fee nar a am si Ngoundiane mardi. wala hmm. mercredi la. waaw mardi mooy final bi. waaw mardi mooy final poids lourd yi. Hmm. waaw foofu si Leewtoo point net ni ñuy xamal ni am na gala de lutte simple bi am si Ngoundiane sa dëkk euh, Birame. waaw xam nga fan lañ fanaan. Euh, bëree poussière yi gars yi di bëre ba ay une heure du matin xam nga poussière yi nag dañu xaw a bëri plus de ay ay ay cent et quelques foofu moom pour mu foo ñu gaaw leen naa wàññi pour tey ak suba ñu mën a finaliser. te suba mooy mardi mooy final bi mooy drapeau Abdoulaye Diouf xam nga Abdoulaye Diouf mooy kii doon ànd ak Tafatine di ko defal gàllaaj ji daan jóge Ngunjaan asantin ñëw delloo ko njukkal asan day def chaque année korité tabaski mu jël ay nag teg ko ci benn na commencé tey ñu ngi ci ñeenti nag ak quatre-vingt mille francs kon nag loolu moom euh, kuy dundal làmb la ci goxam te ñoom Grand Bagnic ñoom euh, Sélémélé mënumaa lim mbër yi ñoom ñëpp bëri nañ fa mbëri simple yëpp dañuy ñëw kon loolu moom dañ ko rafetlu te naan euh, équipe lewtoo tam day ñëw jàpp ci parce que dañuy naan lamb ji fu mu mënti ne ci Sénégal dañ ko ñëw luqati ko indil ko internet yi tegal leen ko boo ko defee ñëpp kontaan ñu ci jaajëfal bu baax euh, le DG Pape Thialis ak monsieur Diaw waaye yow mii toog ndey kumba parce que yàqu fi dara nag fal njaga yaaram waaw man sant bi moo tax bugguma cee sori waaye Ngunjaan su ma dëkk la waaye nag Fall daa war a ñëw découvrir Ngoundiane Ndeye Coumba découvrir ko ay Aïcha découvrir ko ak ñeneen ak ñeneen parce que dëkku làmb la ay ancien gloire ak fa ne ak ñëpp ñoo xam ne dañuy dund làmb Ndeye Coumba loolu am na solo kon équipe bu Leewtoo dañ fa teew suba incha allah si kàddu yooyu la leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama doom euh, Mouhamed Diouf nuyu sama yaay mère so ko taral ak jàmm di nuyu aussi euh, Dadigé di nuyu Asta ne depuis Parcelles Assainies naa ko yal na yàlla fëgg sa bopp nga jóg jàmm delluwaat ci Italie mais balaa boobu nag ma souhaité la ay vacances neex si sa wetu euh, na ki nga xam ne mooy Khadija Diallo di nuyu samay doom maam Diarra Penda bébé Fallou bébé Moussa bébé Rokhaya Junior aussi yaa ngi si biir ak Eva Diallo di nuyu aussi Babacar euh, dafa nekk si yeneen yitte moo tax gis leen que ay Diouf maa ngi nuyu ak Aïcha Faye madame Niang euh, Biram waaw ñaanal ñëpp jàmm euh, di ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp ñiy seetaan Leewtoo Euh, ñu fekkwaat màggali déwén incha allahu rabi euh, barke Cheikhul Khadim waaye euh, nuyu waa Ngunjaan pay joor saamel càngaay mburwaay xam nga <laughs> ndey kumba gëlëm boo ko yónnee ganaar ganaar yaa ko ñibbiloo ah donc maa ngi nuyu Ngunjaan yëpp Ibra Saaro lagu yàlla nuyu nañ ko bu baax a baax duñ ko fàtte suma ingénieur boobu xam nga xale yi ñoom ñëppay suivre Leewtoo TV waaye nuyu bu baax nag ndaag bu ëmm wala ndaag bu biram boog bu leen neexee waaye nuyu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp suma doom ak Mouhamed waaye nuyu sa Mouhamed mi dañ ca daje waaye mboolem ñuy suivre waa Italie waa Espagne ñoom maam say vraiment sama doom Dieynaba euh, astu soirée ak mboolem sama pap Ousmane borom xolu jàmmaab yi nu comme ni ma koy waaxee sama yaay na ba ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal jàmm waaye di la ñaanal di nuyu bu baax Fallé bi na ci caméra bi parce que moom suma sëriñ la euh, séddoo suma DG ma ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm ak xewal waaw dinaa euh, soxla naa loolu nag ñu ne ma séddoo day takki boo ko defee daal yëf fi gën a neex loolu am na solo ba suba incha allah.